maa ngi gërëm population bi population yëpp umpu leen woon ne man candidat laa woon à la candidature ci mairie bu Dalifort te dafa amoon ñoo xam ne ñoo ma investir te wax nañ ko fii léegi ci micro yi mais ah nu ñun dañu bokk ci parti muy APR ñu bakk ci une coalition muy Benno Bokk Yaakaar ñu am kilifa muy le président Macky Sall yaakaar naa bu defee choix ne ci diw laa ko porté ñun duñ être favorable ci cette décision am ci li nga xam ne wax na ñu ci. président Macky Sall fu mu ñu joxoñ foofa la parce que yàgg nañ ci mu ñuy joxoñ ñu koy def donc tey jii ànd nañ ci choix bi nga xamné ne légitime bi nga xamné ne def nañ ko muy désigner le candidat Mamadou Mbeng pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakaar fi ci Dalifort and nañ ci favorablement. tey jii ki nga xamné ne le président Tan, muy Mamadou Mbeng

maa ngi tàllal loxo l'honorable député Awa Niang l'honorable député bi nga xam ne moom mooy la coordinatrice de benn euh, de l'APR fii ci Dali ci Dalifort maa ngi gërëm sage yi maa ngi gërëm chef du village chef de quartier mooy Ibra Ndaw mu ngi ne toog ku am ku koo xam ne amul benn kiñaan ñëw na euh, président Macky sal nag bañ àgg ne dafa yàgg bañ àndee dafa yàgg tuuti rek ñun daf ñu doon def loo ñoo Café de Rome

donc nous aussi dafa am mais nous dañ Nous lu jot yomb ñun lu jot yomb heure Nous rek nous lancer appel président de la république Nous ko faire Dalifort nous des intellectuels nous fi Nous des managers nous fi donc rien ne nous empêche nous ñëw vraiment nous, pour nous gérer li nga avons terroir les structures comme ni marché poisson SOCAS beau maraîcher etc. on a la compétence on a euh, l'intelligence on a le dynamisme on a le courage de gérer donc nous devons defal pour jeunesse parce que la jeunesse de Dalifort structure la jeunesse de Dalifort Nous, dit, koy euh, pour y avons un poste de responsabilité qui xam la jeunesse de Dalifort